قد بخلبي لما لا وسامني زماني إنني أتى بأك سوى أكرم على لا وسع

الله لا اله الا هو الخير لا تاخذه سنه ولا نوم ولا ما في السماوات وما في من سلس يثمن الى باذن الله ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يدون من دونه لما توتر ما قال ولا ثم ثم اكرم ومن خطاب قلبي يعلم على تعلمني لمني من الهدى

كفاك ربك كم يكفيك فاقبا كفاك عامل كمين كان من ملد إن المهدى بالوعد جل أكرمنا يا يا لما الله

أنا أتيمة بالإقلال بين أزعلنا دولت بالجست وبجست ما متخم إذا بجست دفن وأخل مدى برنا برنا برنا كمان أوسع لولا وجدت للرب إلا امتلالا أقتد ما يبس الأنوار أنا في الدوالا ويتوت بلا جيت كما خواد خجبنا تدعو وتبا جفنا جفنا جفنا كما لا لا وجدوا إلى الانتهاء نسيرا واتها أسيا تأسري فعلنا قد بخل بها محمد محمد محمد يا الله ما تقول الله صلوا قدم كلي لا في الفضل والمنن أدنى قديم المنوى بالفرد وزمن تنجلنا خالد هرد الله قومام تغربا سيخرف الجود قومام تغربا سيخرف الجود قومام تغربا سيخرف الجود قومام تغربا سيخرف caaginu alal joo am wala daraja joo am déedéet ak bi rekk mooy tax a jariñu ci yoon wi mu tàmbalee ko ci njabootu boppam nag daf leen woowoon ci Ceyeen Jolof woo Cheikh Mouhamadou Moustapha woo Cheikh Mouhamadou faadal woo sëñ Mor Roqaye Bousso woo sëñ Massamba daane leen bis ni ki tey aw doom wala boog du ma bàyyi kenn daane leen du ma nijaayi kenn sëñ Mor Roqaye Bousso daane xam boppam ndax nijaayam la daan ne leen du ma magi kenn ca boobu sëñ ma sàmbaa nga fa daan leen li fi nekk daal dafay jaay ca ku jënd nag ñu jaay ku jënd ñu jaay la ca moo dig taalibe rek ba mu ko waxee ñoom ñëpp dañoo daldi jaay lañu amoon ci sëriñ Touba ci wàllu njuréel walla mbokk jënde koog taalibe moo taxoon Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu moom da ko daa jëfe turu njañ woo nga xam ne dañ koy faral di wooyee ku ñu dippee sëñ Mouhamadou safaa dafa am cosaan ndax na mu daa def njañ njañ loolee nga xam noonu la daa def looloo tax ñu du kaa ñu daa ñu daa ko ko wooyee ca la ko waraloon mooy rek moo ko waxal boppam Sëriñ tubaa daf ko ko mas a laaj lan moo waral nga def nii nga def sa bopp bi Mouhamadou Moustapha mu ne ko mbàkki xanaa bëgg nurub taalibe rek ci ku toll ne Cheikh Mouhamadou Moustapha ak ni mu demee ci Sëriñ Tuubaa nga am ba ci comportement ci walu melokan sax luy tax ñu ñu ku ko gis ne ab taalibe deug ngi ni mom dara melokan noonu kon nek ak talibé duy wax rek waye jëf la melokan la itam nit da war a melokan wo xamné du jar muy lay waye xam bu fekkee la ci dess moy fo tol ya ngay lay nan mo né ab talibé la pourtant ab talibé la da ngay wax bu boba nag kon say mbir jar naa yow kay ku ne la jakkar na xamné ak talibé deug ngi ni na fenc ci sa saw melokan na feeñ ci say jëf na feeñ ci sa jëflante non la njabootu Serigne Touba gi melone ñi ñi fatali ko tay jii non lañ melone motax bam leen waxee loola Cheikh mohammed mustafa wax loola Serigne Touba waye tam da ngay gis ne it loolu la daa jëflante Serigne Touba kuñ ca gis kum ci gis kum ci jëflanteel du la wan mukk ne la sa magla wala may jëwriñu Serigne Touba dedet ana lu mu leen di wan dafay bëgg rek wan leen ne man sa taalibe baay laa am na kenn ci njabootu Serigne Touba gi wax na ne soxna May la soxna May mun a radiyallahu anha daane wax naan ñun de yeex nañoo xam ne ñoo Seex Seex Mohamadou safaa ñoo bokk baay ñun dañu dañoo jàppoon ne rek suñ taalibe baay la waaye moo ko ca gënal ndax moom dafa jaay ak njurée lam jënd ko taalibe da ngay seet jëflante boobu koo xam ne yéen bokk benn waajur muy mag la teg ci muy jëflante ak jëflante boo xam ne da dem ba jàpp ne sax kii du bokk leen bàyyi waaye sa taaliba bàyyi la xam ngeen ne jëflante boobu ak taaliba dëgg ko lal kon loolu bu ñu xoolee ñooñu ak daraja jan amoon kon ñun nan lañ war a mel nan lañ war a def kon mbir mi nekkul ci ak col nekkul ci wanewu nekkul ci waneeg daraja nekkul ci it foo gisee foo taxawee ba toll ci yenn alal yi nga jàpp ne ak ceex dañ koo war a jënd jàpp na ak mu di saareex dañ koo war a jënd ni ñuy jëndee marchandise ca bitig ba déedéet mbir mu wërta doone noonu yombe wut noonu de Cheikh Abdoulaye Mbacke nee na bu fekkoon ne ngërëm da ngay tëdd ci am néeg tëdd sablaal ñu ne la pëkk pëkk ngay nelaw ñu ne la am nga ko su yombe woon noonu kon nee na sëñ rasulullah amee ko noonu ca lu ne dañ na ko kon su boobaa Serigne Touba amee ko noonu ca waaye cey la mu daj Serigne Touba nee na nabaxtu ko maan ala kaddin bada lii xabla an araaridan mu abada maa ngi leen di yee ci coono bu métti bu tar bu ma daj laataa may am ngërëm lu sax dàkk Sëriñ Tuubaa ko wax kon mbir mi du lu yombe noonu moo tax ñoom dañoo liggéey sëñ Mouhamadou Moustapha daa wax naan man dey Sëriñ Tuubaa ma jur te dégg naa ngërëmam waaye man Mouhamadou Moustapha de juba ma doy waaw ak juba ma doy dégg li wax Sëriñ Tuubaa ma jur loolu doy na su ko neexoon mu yem ca waaye mu ne dégg naa ngërëmam kon dafa liggéey dafa jëf ba dégg ngërëmam fu ne liggéeyal na fa Serigne Touba ba dégg ngërëmam waaye daana man ñu ak njuba ma doy xoolal loolu te Serigne Touba li mu woote lépp ak njub la kon moo tax bu ñu jàppee loolu ci seen taalibe googee ak nañ jaay woon seen njureel jënd ko taalibe ba wane ko ci jëf ak jëflante su boobaa ñu nit war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax a baax suñu diggante ak Serigne Touba léegi moom defe naa ne. ni ma ko junjee léegi doon murit saarix dafa yomb lool moom amal xaalis rek amal xaalis rek léegi tey nga dem jëndi ko ñu daal ñu daal di jël saw tur yokk ca murit saarax jeex na am na ku baax ku bokkoon ci kam ngaa ngi ngim sëriñ tubaay sëñ aafiya bu so yàlla na suñu borom yokk leeram kàngaam yi la bokkoon kooku yanul na sëriñ tubaa ak yanul na ak gaal di ko yut sëriñ tubaa addiya tuubaa gi ba ba ceyeen jolof dañ ko daa dox xoola murit saarax yu njëkk nañ meloon dox keroog ba mu aggé ba téggi gal ga dafa marqué ci mom ba déru bopp ba sax daf ca xawa top topp Serigne Touba daari jël loxom bu tedd ba ray ko ci bopp ba mu déllu melat nam melon gis nga koku ma lay wax ak daraja bu mu amone masna romb ben barab ben bammel ñu bind ci kaw diw sàngam mourid saadix mu taxaw fa mu def ko xal ju metti mu daan ne cay tur wii ma gis tey jii di muy murit saadix su ma leeroon ne su ma faatu woon tey jii ñu waxal ma ko tamit dëgg jar la ma faatu tey jii ca kooku liggéeyal na Serigne Touba liggéey bu rëy ba bokk ci kàngaam yi ba nopp di werante sax naa ndax man doon naa wala doonu kon mbir mi dul yombe noonu kon lu ma tabàyyi xel la nañu xam ne suñu alal yii Serigne Touba moo ko ndax ñun dañoo jaay suñu lépp jënd ko taale bi dañoo jaay suñu lépp ni sëñ Fallou daa wax rek naan ñu day amatuñ dara suñu bopp daane suñu bopp sax amatuñ ko moomatuñ ko ndax dañ ko jaay sëñ Tuubaa ba noppi loo jaay nag moomatoo waaye bu fekkee sëriñ bi daf laa diggal nga cee am loo cee seet naan ndigal lii kat neex na ma ak naqari na ma tolloo nag sama bakkan ak tolloowut ak sama bakkan di ca seet naan xëy naat ah lii daal su ma ko defee boo tuut sama daraja ji ma war a am du ma ko am moo xam ci àdduna mbaa lu mën a doon su booba war ngaa seetaat sa sa murit saada ndax ba ngay jaay di jaayante da ngaa waxoon àdduna ak alaaxira xaajoo ko woon kon bu mu neex rek nga bëgg koo xaaj naan sëñ bi alaaxira rek laa seq moom waaye du àdduna la ngay la ngay yaakaar alaaxira àdduna nga koy liggéey di am da nga ko fàtte moo tax loolu lu ma ta bàyyi xel la Sëriñ Tuubaa dafa wax ne murit saarix ay melokaanam ñeent la ba ci njëkk mooy da ngay dëggal ci bëgg Sëriñ Tuubaa a sidq fi mahabbati cheikh maanaam sëriñ bi da ngay dëggal ci bëgg ko kan kala yàlla booleel muy sa kilifa dangay ngay dëggal ci bëgg ko kilifa yu tedd yi ñuy fàttaliku tey jii ñoom noonu lañ meroon dañoo dëggu ci bëgg sëriñ tubaa lépp loo xam ne wax nga leen ko boo ci tuddee sëriñ tubaa rek jeex na waaye gis nga la mu wax ne as-sidqu fi mahabbati cheikh mooy dëggal ci bëgg sëriñ tubaa xam nga waxu ne da bëgg sëriñ tubaa rek wala da ngay bëgg sëriñ bi rek waaye dëggu da ciy dëggu dëggu ci mooy lan mooy bu ko booleek dara sëñ Mouhamadou Moustapha boo demee ci discours ba mu defoon 1932 keroog ba ñuy ba ñuy teg xeeru jumaa ji dafa wax ne maa ngi leen di xamal yéen murid yi ne ak taalibe du nu ay wax rek la ma maanaam nga naa am murid rek laa ñu nangul la ko déedéet waaye jëf la pas-pas la waaye jëf la loolu Cheikh Mouhamadou Moustapha wax moo tax sëñ Bay Jaxate nee na murid dëgg yombut la yombay nga naa ne man ab murid laa te doo am murid murid dëgg day dee ca deewul asal lu dee metti metti dabul ak murid murid saadix dañu sonu dor ko don de da ngay deggu ci bëgg sëriñ bi deggu ci bëgg sëriñ bi na buñ ko waxee moy lan da ngay gis ko xam dana man de dama bëgg sëriñ bi lool waaye day bëggalé nak ab kat ci wet gi dang koy gis de lélé sa da ngay dugg ci auto yi gis ko xam day taf ben photo sëriñ daari jël photo ab mbër ci wet ga photo ab kat ci ga ab wecc way kat ab kat ci ga nga xam ñi ñepp neena da leena boole bëgg ci xol bi man na nek le lëndëm ak leer don ñoo andi faaw am bu ci doon dëgg nak faaw mu doon am bu ci doon dëgg da ngay dégg ku naan sax yi man day wax dëgg yalla man day sama bëgg sëñ bi lool sama xol bi dal sëñ bi rek ci nek ngeen di waxtaan bam mu mu jekk-jekk daan ne ci waye diw sangam day mom ak mëna bëré wala diw sangam day mom bit bam duggal dugal nga xam wóor ne la mang ci xol bi munta ànd gis nga ñu baax ni seen bëgg seen seenu xol yàlla rek ci nekk leneen nekku ci moo tax alal mënu leen a jaaxal daraje àdduna mënu leen a jaaxal waaye yooyu yëpp boo ko defee ci sa xol bi ca waneen da ngaa bëggaale yàlla yàlla moom nekku ca yàlla du gudde yàlla fa muy dugg moom rek fay nekk ca foofu nag mooy fa Sëriñ Tuubaa nekk kon moo tax ak siddu fi mahabati cheikh waaye abat nag abat mooy ba faw xam nga nekk ci lu baax mën naa yom waaye sax ca moo jafe da ngay gis ko naan bëgg naa waye ñu dox yag mu jek mu soppi ko soppiku gis nañ ko ba tàyyi dañuy jek jek alal duggu re mu ko dara je duggu re ñu soppi ko wala ñu xormel ko alal li aduna rek mu soppi ko kon su boobaa bëgg ga ma ngay tambali di di di am nak lu ca lu ca rax la ci tege moy nga top ndigal ndigalu sëriñ touba sab sëriñ lu mu la digal fu mu na nga dal di top ndigal lolé su amri yi su warab ndigal top ndigal tere loolu mooy ñaareelu melukaanu murit saadix topp ndigal bàyyi tere la ci tege mooy nga bàyyi gaaral walaw bi baatine nag dont ci biir la mooy sëriñ bi bu la digalee bul gaaral ndaan seet sëñ bi daal li muy digle moom xanaa daa xamul jamono rek waaye bu xamul jamono lii du ko wax fu ne léegi gaa yi bu sëñ bi digal diglee loo xam ne neex na leen danaan tey tey sëñ bi ak a baax moo tax moom day daa moom da yërëm taalibe yi rek waaye bu diglee loo xam ne nag dëppoot ak seen bakkan ñu ne sëñ bi waxu ko dañ ko ko waxal lo lañu wax señ bi waxuko ko dañ ko ko waxal wala señ bi xamuko ba diko wax ah xamuko ko man nako deggit lo lepp dañ ko wara bayyi xel kon señ bi lum la digal lum metti metti bul garal don ci biir la biir ci manam ci biir gi na moy ñaxtu moy ñaxtu biir yi xam léeg da nga gis ko xamne munta ñaxtu ci kaw ndax duko ko waye ci biir lay ñaxtu manam di am lo xam luy nux ci xol bi lay don kon señ Cheikh ñing koy sant diko ko di ñaan suñu borom yokku tawfiq feex ja ak xewal yi di ñaan tam yu tedd yi nga xamne ñom la jotaay bi ah di siyaara bu baax nag sëñ Moustapha moom sëñ Alaaji Baara moom mi ak si léegi ku baax la tubaarkaala waaye sëñ Basiiru moom sëñ Moustapha Basi moom sëñ Moustapha sëñ Moustapha sëñ Moustapha Basiiru moom it tubaarkaala ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal sëñ Ahmadou sëñ Aliou ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaara di leen ndokkee ci bis ak mboolem ñi fi teew di nuyu ñëpp di baloo ak ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di ci jiital sëñ Sidi Maxtaar mi toog jotaayu Cheikhuna Cheikhul Xadim ñu ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ci teg sëñ Ahmadou Mokhtar mi toog jotaayu Cheikh Moustapha Karim ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir jataay bi kenn ku nekk lay ñaanal bu baax suñu borom may la wér ak te tànk yi ñu def ba ñëw suñu borom def ko yiw ñuy wax nag ci turu soxna mam Fatim bakke maremalo Lo mu wax ñu ay kàddu xeyna dañ ñu lot ci di diko jallale ne dafa bëgg mbokk yépp séré ko muy lan jëk wax muy jotaay bi nga xam mom la fi fekk dafa ci si yu mag ni ndax bari nañu tew fi seen wajur yo ya ni lañ nekk won ci dëkk bi andok ak Cheikh Modou Sa ak seigne Aliou ñu nekk fi di fi sakku xam-xam kon neena jotaay bobé mo delsi kon mi ngi leen ci ñaax bu baax ci ni ngeen andé ni andu ko ak Serigne Cheikh ngeen andé ko noonu ndax mag nga non lañ ñaan kon mu yag lool neena na dekk bi daro nga xamné moy si batai mom day na ci ba tay di set si Serigne Aliou waye neena dafa amone ci mom ak jaaxle ndax sa ba masaana yegg si Ali Aliou moo jógal dugal ko ci nek Cheikh amadou Sa bi nga xamne mo nek ci bir keur gi nee bu wuté lu koy gatt bi nee buñ ko defaree moy ànd ak nga xamne andi ñew andi xewal yi nee ba bis mu ne ko soo ma fi waté ñam dotuma fi ñew mu ne ko dedet ah kay xam nga lutax tax ma mu ne ah, mu ne ko dagay dama dagay sama domi serigne da ngay sama doomi serigne kon fofu ak talibé néna fofu la xamné ne bu baax serigne Aliou ci ak da ndax yo xolé wu ko rak waye dekete Cheikh Modou Sa def ko wajur ak ab serigne lako def ba tax mom jëmmam jojé mu koy xolé jëmmi Cheikh Modou Sa néna nee na loola lu rëyoon fi mom la ta li nga xamné ne nekkon serigne Aliou mo nekkon serigne ahmed Tindodi néna mo nekkon serigne Abdou Salam mo nekkon Cheikhul Khadim bépp ci ñom ñoon ñëpp loolu mo nekkon ci ñom nee na nag muy wax ne sëriñ Cheikh mii moom mënu ci seere ndax taxaw na ko taxawaay woo xam ne su Cheikh Modou Moustapha dellusi woon du ko defal lu raw lii ko sëñ Cheikh di defal bu Cheikh Modou Moustapha dellusi woon nii sëñ Cheikh taxawee ci moom Cheikh Modou Moustapha du ko defal raw loolu nee na sëñ Cheikh mi ngi ko taxaw ci côté yépp lépp loo xam ne xam na ne bëgg na ko wala soxla na ko loola sëñ Cheikh ca la nekk di ko toppatoo guddi ak bëccëg di ko nemmeeku lépp loo xam ne moo ko war ci moom mu def ko nee na ngeen seereel ne sëñ Cheikh mii taalibeeb sëriñ Touba la bu bu bëgg sëriñ Touba bëgg Cheikh Moudou Sakho njabootam ba lu baax rek moo ko ñor lu baax rek la bëgg dafa taseeg nii ko xam ne sëñ Bas noonu la ko waxee noonu la ko soxna si waxee den lu baax rek la sëriñ Cheikh bëgg képp koo xam ne am nga ak moom xaar na yàlla de daa fekk da ngaa waaye soo jubee bu ne. tegu ci yoon wi du ngeen kenn du leen dëgg waaye saa bu fekkente ne leneen da laa ñor lu dul lu baax bu boobaa moom du ngeen amub taal nee kon loolu mi ngi koy seereel ñépp kon mu wax ne ñi fi teew dañ xam ne sëriñ Cheikh mii lii nga xam ne moom la ko sëriñ bi dénk soxna si nee na moom day mi ngi ci def ab garantie di wax ne bu ko kenn gàllankoor ndax képp koo xam ne jëm nga ko gàllankoor suñu borom dana la gàllankoor kon nee na na ci ñëpp jàpp te ñëpp jàpp ne kii moom liggéey ko du sëriñ Touba Mbàkke la lépp loo xam ne def na ko wala mu xalaat ko la moo ko sëriñ ko digal xam naa ay kàddoom dafa gën a matale ndax moom day kilifa di doomi Cheikh Modou Sa ñun ñuy sagaru ndongo rek am na ci yoo xam ne duñ ko suñu xel du ci yegg bañ man koo jàllale ni mu ko bëggoon a jàllale waaye lam ñu waxoon ëpp na lii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sayidina wa mawlana muhammadin makin وعلى آله وصحبه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد البشير من شيخ محمد عبد القادر. ميغا nga موي ne موي كلفة ديتاي. kilifa jotaay bi نيو naa ba kilifa yi nekk ci ginnaawam yépp ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu sunu bàjjan sunu kilifa suñu wajur di soxna Maam Faty Mbàkke Marème Lo moom it donc koy nuyu bu baax di ko ziar di ñaan ñu jot leen sunu nuyoo ci Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifatu Cheikh Mouhamadul Moustapha al di ñaan ñu jottinu suñu ziar ak suñu nuyoo ci saaxibul yi ak cheikh Seydou Muxtar xalifatul am li tariqatil murid di nuyu bokk yi fi teew yépp di leen sant ci déplacement bi ak coono yi ngeen xam ne jànkonteel ngeen ko ba ñëw fii fenn fu ne ci biir réew mi ak bitim réew fu ne nit jóge na fa ñëw ci bés bi di bisub Serigne Cheikh Aliou Mbacké bo xamné taxawal nako defe na ne lee mu ëpp fukki at ak djuroom mu diko defal wa djuroom di Serigne ali Mbacké Serigne ahmed Sindori Serigne Abdou Salam ak njabootu Cheikh Moussa gépp kon ñoo ngi di sant bu baax di len gërëm di len wax ne di len wax ne bismillah ci pàkk bu tedd bi di Daaru Naim Daaru Naim di pàkk boo xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim moo ko sanc ci gannaaw Cheikh gannaaw laqu Xaadimu Rasul comme ni ko sëriñ imaam ña ngi waxee sànq innal la fi naim jooju mu wax mooy di nekk mat ñi nga xam ne dañoo àndoon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ni mu ko doon tekkee mooy abraar ya day ña nga daaru naa loolu lañ daan wax ndax pàkk bi ñu ko Cheikh Moustapha al Karim sancee dafa tànn ay nit ay taalibe yoo xam ne ñu àndoon ak Serigne Touba lañ gannaaw Serigne Touba ànd ak moom di liggéeyal Serigne Touba mu tànn leen andi leen ci dëkk bii Euh, mën naa wax ne ab lim bu takk la woon ñu nekk fii ànd ak moom di ko xoolee Serigne Touba te muy Serigne yi ci jamono yooyu mu nekk fii di liggéeyal Serigne Touba wax nañ ne xaalis bi nga xam ne moom lañ njëkk def ci jumaay Touba ci Darou Minane gii lañ ko bay kon Darou Minane dëkk bu tedd la waaye dañ fi nekk. mën naa wax ne bariwut mu wuti borom bi mu fi jógee itam bi ñu sancee dëkk bi sëriñ nga xam ne mi nga xam ne moo fi nekkoon ba ñu sancee dëkk bi la fi nekk Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim bokkoon ci ñi nga xam ne dañ di fi doon tarbiya ndax wax naa leen ñi fi nekkoon ñëpp dañ leen a tànnoon andi fii sëriñ am yu bokk ca ñooñee bi nga xam yàlla dogal na Cheikh Mouhamadou mustapha ñibbi Touba serigne amadou yu continué nek ci dëkk bi nek na fi lu toll ci mën na ma wax ne juróom-benn fukki at tey dëkk bi yar njaboot gi teg leen ci mustapha xam ànd ak ñoom liggéeyal serigne Touba lool rek moo taxoon serigne Cheikh Mouhamadou mustapha sanc dëkk bi dëkk bi loolu yi moo fi wéy ba léegi kon noo ngi leen di wax ne dalen ak jàmm ci dëkk bi dëkk bi itam noonu ni ko serigne imam ñang waxé dëkk bi képp ko xamné ki kii serigne Touba nga tek nga fi sa tak Cheikh Mouhamadul Bachir dawul jóg di jaar fi di fek serigne sëriñ am bi mu ko wax Cheikh Mouhamadul mustafa mom Cheikh Mouhamadul Bachir ak Cheikh Mouhamadul mustafa mom Cheikh Mouhamadul Fadal ñom ñep xam nañ dëkk bi min nañ dëkk bi ndax nekkon nañ fi comme non moko ko imam waxe non rek la demee mboolem njabootu Serigne Touba yi itam kenn ku nekk teg nga fi sa tànk fekk fi Serigne Aliou yi Serigne Abdou Serigne Abdoul nemmiku Serigne Aliou yu bari fii ci dëkk bi kon ñoo leen di xamal ne ñëw ngeen ci dëkk bu tedd di leen sant yi itam ci ñëw gi ngeen fi ñëw fekk si sëriñ Cheikh ci bis bi nga xam ne moom lay defal ay waajuram te noonu ko sëñ imam waxe bokk na ci. li nga xam ne kenn ku nekk yaa ngi koy ñaan mooy boo fi jógee bàyyi njaboot goo xam ne danañ la ñaanal fa nga toll fa nga fa nga tëdd ñu di la ñaanal di la fàttaliku. defe naa kon Serigne Cheikh ñoo ngi lay sant la ma cay dolli rek gannaaw bu ma leen dalalee ba noppi mooy Serigne Cheikh ak Serigne Moustapha ñooñu ñoy suñuy kilifa ñooñu sëñ maa wax ci ñoom dara waaye ñi nga xam ne ñoo ma féete suuf muy njabootu Serigne Amdi ñoom ñëpp ñu ngi ndax amuñu loolu sëriñ am sëriñ am bi mooy seen bunt ci sëriñ Touba kon nag amuñu loolu sëriñ am te yaa fi nekkal sëriñ am bi kon nag njaboot gi na xam ne ñëpp ñu seen ginnaaw ñeneen ci des itam mooy njabootu pas-pas ndax njabootu deret moo am ak njabootu pas-pas njabootu pas-pas nag mooy dongo man ci wet googu laa bokk sax kon taalibe yëpp ñi nga xam ne dañoo yaakaar sëriñ am lii nekkoon ci ginnaaw sëriñ Ahmad ci Ndóodi wala sëriñ Abdou Salaam wala njabootu Cheikh Moustapha gépp na nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw ñun amuñu lu dul sëriñ Touba amuñu lu dul sëriñ Abdi amuñu lu dul sëriñ Ahmad ci Ndóodi kon nag njaboot gépp maa ngi leen di soññi ñu gën a nekk benn gën a am passeef gën a euh, yeesal seen njëbbal te xam ne sëriñ Touba jógu fi lam doon mayee démb ak bërki démb ba fi ne mi fi na ko mag ñi doon ñaanee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 سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أه، بقي في تاو نونجي نوي نيب دي سنت نيب دي غرم نيب دي tambale nuyoo bi ci suñ kilifa yi nga xam ñu bokk ak ñoom bis bi ñu xam ko jàpp ko bàyyi seen yi te teew fi ngir loolu ñu bokk tàmbalee ko ci suñu bàjjan bi sunu yaay soxna Maam Faati bin Cheikh Moustapha ak sunu mag si Moustapha ñi Mouhamadul Amin ak mbooleem ñi nga xam ni teew nañ fi te bokk ci njabootu Sëñ Tuubaa gi ñi fi ñëw ci suba ñu fi ñëw ci bëccëg ak ñu fi ñëw léegi ak ñu toog ci jotaay bi ñoo ngi nuyu ñëpp di seent ñëpp di gërëm ñëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla mi nga xam ne ci dogalam ci bëggam eh, moo nu dimbali ba nu fekk bis bu màgg bu rëy bii ñuy defe ci barab bu màgg bu rëy bii di ko defal ñi nga xam ne yàllaa leen màggal tere leen jox leen cër bi mu leen ci jox moom ci sant yàlla bu baax ndax yooyu ci daje yëpp dajale ko fekke ko yombul ku ko yàlla defal war nga ko sant kon alhamdulilahi rabbil alamin ndax barab bi wax nañ ko léegi dootuñ ci delloo si ndax barab boo xam ne dafa sosu ci ndigalu Sëñ Tuubaa loolu rek doy na doy na lépp ci aw yiw ak ak mbaax bu ndigal la jaaree ci Cheikh nag mi nga xam ne moo ko wut te tey jii fu nu jëm moo nu wan yoon moo nu ca teg ah, loola nag day daal di rëy gën a rëyati jaar fi mu jaare yépp suñu àll mi nga xam ne ginnaaw Cheikh Moustapha moo dundal barab bi taxawal ko bu agsi fii ba tey jii seen Cheikh wutu ko kon loolu rekk doy na ci réyaayu barab bi eh, ñu ngi koy defal itam ñu ku bokk ci Cheikh Moustapha rekk doy na si waxuma nag ñu liggéey liggéey yu rëy yi nga xam ne liggéey nañ liggéey nañ ko ba yaayoo lu ku baax ku daan def lu baax yaayoo muy suñuy waajur suñuy nijaay si Aliou Mbacke sëñ Aliou Mbacke sëñ Aliou Mbacke ak sëñ Abdou Salaam ak sëñ Ahmad Tindooti nga xam ne tey jii ñoom la seen doom ji nga xam ne na ko xadis ba waxee dañu wax ko léegi waladun saalihun yad'u lahu waladun saalihun yad'u lahum la tey kon maa ngi ci sant yàlla bu baax te loolee rek doy na sëkk ak rëy ak ma ak kon loolu rek lañuy ñuy sant yàlla ci teewaay bi màggaayu barab bi ak ñi fi màggal yaakaar naa loolu ku ko fekke dund ko teewe ko rek lool ci amul ci yiw rek ci yow la kon yaakaar naa ne lépp loo xam ne daan ko fi ñaan rek yàlla doon na ko def te ñaan gi noonu koy tàmbali ci sëñ Cheikh mi nga xam ne li barab bi màgg màgg màgg nag ñi màggal li ñuy màgg màgg màgg bu amutoon jenn jikko ñi fi teew duñ fi teew liñ ci bokk bokk bokk bokk kook moom itam am na noo xam ne bu ko defoon rek dangay ne ci sëb néeg wala sa kër mbaa sëb dëkk di yéene waaye doo dox ak say tàng agsi fi ndax nee nañ kanam du kase waaye koo koo ci tëj mu xam ko te moom na kanamam gi tëjalu ko kenn te ñi fi daje tëj yi wane nañ ko kon noo ngi njëkk ñaan yàlla ci màggaayu bis bi barke bis bi ak ñi ñi koy defal seen màggaay ak seen daraja yàlla boole sëñ Cheikh ak njabootu sëñ Aliou gii hmm? sëñ Moustapha ñoom sëñ ak rakk yépp ak dong yëpp ak njaboot gépp yàlla yàggal leen fi may leen ak wér kàttanal leen ba lépp loo xam ne mi ngi ci seeni xol ñu bokk koo jëfal seeni waajur bëgg koo jëfal sëñ tubaa ñu mën koo jëf ci sëñ tubaa nangu ko seeni waajur nangu ko te ñun ñëpp ñu ànd kook ñoom nag euh, li ci des rek mooy ñu ko waxee wax ji du gudd dañuy jéem a wax rekk ci turu mbokk yi nga xam ne euh, teew nañ fi ci bëccëg bi gis ñu bari xam ngeen léegi la fi sëñ Bachir Abdou jóge ñi ci des ñëpp danañ leen lim ci suba ba tey képp ku bokk ci sëñ Touba teew nga fi ndax euh, sëñ Cheikh moom yàlla dafa def moo ki bokk moo mbokkam yi képp ku bokk ci ku baax mbaa nga bokk fu baax seeni bokk lañu waaye sëñ Cheikh nag képp ku bëgg lu baax mbaa lu baax ñor la sab xarit la te ñaar ñooñu rek ñoo fi daje mooy mbokk akub xarit mbokk nag yaatu na waaye xarit moom lu jafe la te sëñ Cheikh ku baax ku ne ni ma ko waxee rek ku bokk ci sëñ Tuubaa ku ne sa mbokk waaye nag ku bëgg ku lu baax ku nekk mbaa koo xam ne kii lu baax ñor na la mbaa yaa ngi sàkk lu baax mbaa xam nga lu baax sab xarit a sëwal la Euh, kon ci turu njaboot gi fi teew ñëpp waa waa Kër Sëñ Tuubaa yi fi teew yëpp euh, ñi fi nekk ak ñi fi ñëw ci bëccëg bi ak ñi yéene ñëw ñëpp noo ngi nuyu seen Cheikh di nuyu njaboot gi di ko siyaare ci bis bi di ko sant di ko gërëm te di ko ñaanal euh, loolu nag li tax ñu di ko def mbokk gi ci la waaye jeneen yeneen def ci am moo di seq nañ wopp gi waaye seq nañ itam aw melokaan melokaan woowu tax na ba képp koo xam ne kii ci yoon wi nga bokk yoon wi ñor la nga bëgg sëriñ bi sëriñ bi jaral la lu ne boo xamee sëriñ Cheikh na nga ko jàpp ak sa fukki loxo loolu moo tax bokk yi fi daje yépp seen fukki loxo lañ ko jàpp ndax xam nañ ni dundam gi ñoru ko njabootam gi ñoru ko darajaam gi ñoru ko barkeem bi ñoru ko Sëñ Tuubaa rek ko ñor te yooyu yi ma wax itam lu mu ci am lu nekk rek Sëñ Tuubaa la ko jox ba mu jeex tàkk yaakaar naa bu meloon ni ñenn ñi mel ni man fii mu toll ci lu ñuy gis weesu na ko bu yàgg waaye da koo talut da koo talut sëñ tubaa rek la tal sëñ tubaa rek la dëgmal sëñ tubaa rek lay liggéey léppam da koy jox sëñ tubaa looloo tax bu bisam ñëwee képp ku bokk ci sëñ tubaa boo melul ni moom sax da fi teew ngir loolu nga ko ëmbal ngir loolu nga ko jàpp kon nag noo ngi seere loolu xam ñëpp ñi fi teew ñëpp xam nañ ko am na ñoo xam ne loolu leen fi indi mm-hmm. am na ñoo xam ne leneen na leen fi waaye nañ ñëpp xam ne daal ay mbokkam ñu bokk ak moom sëñ Tuubaa loolu rek lañ xam ci moom loolu lañ jàpp ci moom loolu tax ñu jàpp ko loolu tax fu mu taxaw ñu taxaw ci wetam li ko waxee nag na dalal xelam te xam ne adduna bu doon sedd dana sedd ci sëñ te kenn ku ne xam ne musu sedd ci moom nit nag daa tolloog bu demee ba du yëg tàngoor du yëgu sedd boo koy waxu sedd wala nga di ko wax tàngoor yo yokk say wax rek la foofu ne sëñ Tuubaa àggoon waaye ku ne xam na ni àdduna seddutoon ci moom ndax la mu bëggoon ak la mu doon wut kuy bëgg lu baax da sonn kuy wut lu baax da nga sonn waa doo ko am sëñ Cheikh nag loolu xam na ko mbokk yi xam nañ ko ci moom moo tax ñu dalal xelam ci ne ko waxtu wu ne ak saa su ne ne ko wóor ni yoon wa nga xam ne falam maamam jaaroon ba am la tolloog moom ay maamam jaar fa ba am lañ tollook liñ tollool bàyyam jaar fa ba am lii yoon woowee ma nga ci kon nag féeg ma nga ci rek na def ni ñoom bu mu geestu bu mu xool na leen ne jàkk rek jëm ci ñoom bu dara dox seen diggante loolu mooy gàllaajam moo di ñaanam te ñépp nekk nañ ci ak moom ku bëgg ku baax la nekk nekk na ci nekk na ci ak moom ñun nag mënunoo guddal suñ seere ci moom ndax li ñu boole dafa bari ba nuy ba ba ma gënee doon gone ba léegi li ñu boole dafa bari waxuma laa nag sëñ Moustapha ak sëñ Aliou ak mu ne danaa ko fàttali fa ànd booba ca déwén sa ne sëñ Moustapha noppalu mu ànd ak moom ñi fekk ko ci kër gi ca Daaru Minam euh, mu siyaare ko mu fàttali ko nganam ngam defoon fii ci Daaru Naayim nekkoon nag bu ma soñoon gone mbàkki mbàkki yëpp ànd doon benn waaye yéen ñaar ñi seenu ànd moo ma ci gën a neex ka ko ñetteel muy Cheikh Anta kon li nu boole dafa bari ñaareel ba itam suñ mag la ci wàll googu di sunu sàng ci wàll gële <laughs> euh, doonte nag gëj naa joxe dara it sunu sang rek léeg-léeg sax damay dem ba ne te teen koo far wëlbatiwaat ma doonul sangam ndax yëf yaa ngi bëgg a yàgg kon lool lépp bu nu boolee seede ci moom day jafe waaye yaakaar naa lii ma wax te waxewuma ko sama bakkan waxaluma ko sama bopp waxaluma ko sama xol mbokk yi fi teew ñett bokk ci Sëñ Tuubaa ñoo ko wax wax loo ma ko mu àggale ko loolu rek doy nag seere kon nag yàlla ko ci yàlla boole moom ni sàmmal na ko sàmmal njabootu Cheikh Aliou bi gépp sàmmal na taalibe yeeg mbokk yeeg ñépp te ñu soññi suñ mbokk di leen soññi di leen xamal nii rek moo am solo sëñ bi moom lépp loo xam ne jig nanu mbaa baax na ci noonu rek defal nañu ko ba noppi te defal nañu ceru doy sëkk nun nag noo war a des doon ay góor doon ay jullit doonte doon doomu aadama moom gore jafe na ko inal insaan li rabbihi lakanuud kon euh, nit ki li am sol rek mooy mu seet boppam lu boppam seet ni ko yàlla def seet fi ko yàlla boole seet li ko yàlla defal bu ko defee rek mën naa am mu doon góor te bu doonee gor du mën a def lu baax la yàlla bëgg lay def bàyyi la mu tere yàlla mu yàlla dimbali ci loolu saxal mu ci te mu sëlmu te yàlla def suñ Cheikh yàgg jiite bis bii ànd koog njaboot gi yàgg koo taxaw te ak mu ñëw ñu gën koo mën ca ca ca ma weesu woon te ànd koog taalibe yi ak njaboot gi ak taalibe yëpp ak murit yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mu tàmbalee ci Cheikhul Khadim moom Cheikh Amadou Moustapha jaar ci sëñ Abdou Salaam jaar ci sëñ Aliou ak sëñ Ahmadou Tindodi di ñaan liñ fi ñaan lépp suñu borom nangu ko euh, te la ca yiw lépp ñu ko doon ñaan am ko te ba dem ca ñoom ba ca e, njabootu màmbaaram yépp e, di sant ñu fi teew ñëpp nag ci bokk yi ak taalibe yi ci suba ba léegi li fi teew wax dëgg yàlla njaboot sëñ Tuubaa gépp teew nañu fi ñuy sant rek xam naa ne ci guddi gi bu ñuy jàng sëriñ Ahmadu dana ko lim ndax euh, rajo yi man koo jëlale euh, ñuy sant bu baax euh, ñu fi teew di tàmbalee ci sëñ Abdourahman Niang di ko sant bu baax di sant itam sëñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Lamine Bara ñu fi teewu <laughs> dafa am fu ma koy nawee tuuti sa wajuru nekk Serigne Touba jaar fi ci lewet ga bëgg lu baax woyof ga mën a diisoo ñëpp di jóg di seeti ñëpp dajalewaat dalalaat xel yi taalibe yëpp ku gis loola riir ja muy àndal ak euh, la muy àndal ci lu lu lu loo xam ne ay ay xéwal lay doon nga mën a seetaan loola jaar fa nga war a jaar ci jàppale jubóog taalibe yi ba mu jógee fii boo foo tasee ñoom doo sëgg déedéet defe naa ne loolu yomb lu ma di bàyyi xel toogaayam bii wax dëgg yàlla mën naa fee yaatu lool loolu lu am solo la ndax nit ki itam war nay xalaat ëllëg ci ay doxalinam ci ay comportement lu am solo la xeebuwul kon ñu ngi koy sant bu baax di jaar ci moom di sant njaboot suñu Tuubaa gépp maam Thierno ñu ngi lay sant bu baax yàlla ah te yàlla danoo booleeg mbokk. waaw danoo booleeg mbokk. waaw néegu soxna Awa Balla. boo fa daan tase. <laughs> imaam Thierno Mbengue sëñ Cheikh ñëw na fi ci suba. <laughs> Euh, moom it yàlla def sunu waajur moo doonoon dayu daaram fii bii sëñ Moustapha di wax li jóge ci sëñ Sidi Maxtaar yóbbante ba mu ko yónni ci man booba mi ngi toog ak bokk yu bari sëñ Sidi Maxtaar ne ko neel Cheikh Aliou moom mu Euh, ku bool bukki xaj baw ko mhm. waaye nag xaj mën na ko baw waaye du ko mat tey loolu alhamdulilah sant yàlla ma daal di gisaat ne jumaay Serigne Touba ju sell ji Cheikh Mahamadou Moustapha tàmbali ko def nañu exposition raay bi Cheikh Mahamadou Fadel eggale ko inauguré ko Serigne Abdoulaye ñëw euh, rafetaat ko yokk ko Serigne Saliou ñëw yeesal Cheikh Mahamadou Lamine ñëw bu gaaw a gaaw waxuma yeesal gi waaye quartier yi wër foofu yëpp mu defaral ko suñ si di maxtaar mi yëkkati ñaari soro ñu naan du farata di ko critiquer ah fees di mucce fees di mucce ah sëñ Tuubaa bu ñu loo xam ne ñu nga fi def ñëpp bu sëñ Tuubaa ñëwoon gërëm leen nga nga ne nga ne nga ci bëgg a wax dara bu ko defee bu sa xel nekkee foofu da nga xam ne ñu baax ñun ñëpp ci jaaroon ci jafe-jafe bu fekkente ne da ngaa la nga bëgg a niru lu néew néew rek te bëggooy jafe-jafe gorewu gorewu kon foofu rek lañ koy daal di féetale yu bare bari euh, di sant bu baax sëriñ su sunu rek lépp lu ma nekk ma nga ca képp ku am lu baax da ngay def ne moom sëriñ Tuubaa da koo jaral gas na forage ci Touba loolu alhamdulilah rabbil alamin ku sañoon loolu mu ngi ci xoole murid yëpp kenn ku bu ku ne bu ñu sañoon dañu suñu borom doy na wërsëgale bañ gaaw jëkkante gaaw def ci seen Touba parce que def na ko defaale na ko ñoo ñu koy ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu sama mbokk waa kër maam Dambale yi xam ne moom nit ak yokk ak mbokk boole na maag ñoom ñu ngi nii ci sama ginnaaw

Euh, man am naa fa tool fa la dëkk mooy cosaan bi kon alhamdulilah yàlla moom nu boole mbokk googu ñu ngi koy sant bu baax ci teewaayam bi moom it di ko gërëm ci ñaan yàlla jàppale ko bu baax waaw jàppale njabootam te barkeel ko sëñ Abdourahman ñu ngi lay sant bu baax yooyu tam kenn ku ne gis naa sa jëf ju baax say jéego <laughs> jéego boo yëkkati rek suñu borom sëñ Tuubaa la waaw yóbbu boo yëkkati rek sëñ Tuubaa tax kon ñu ngi la ci sant bu baax gis nañ ne yàgg nga fi jataay bi yàgg na wax dëgg yàlla ñu ngi ciy jégalu waaye yàggul ci yow ndax lu baax rek nga bëgg euh, di sant bu baax waaw euh, njabootu sëñ Aliou gi kenn mosu leen a dégg ci lu ñu wax dëgg yàlla def nañu suñu fierté bu baax a baax a baax am nañu yar am ñuy teggin ki kenn du leen dégg ci lu dul noonu te jamono dafa xaw a yàqu kenn ko ne ñu ngi lay dégg fu ne loolu alhamdulilah sama satisfaction bopp la loo xam ne dama leen di jël seere ci yéen ne loolu sant naa leen ci bu baax ndax bu suñu àll yi ñëwoon duñu rus bu déglu si woon duñu rus kooku kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen di sant bu baax suñu Moustapha Moussa ku ma xam-xam nga ko ku ma xam rek xam nga ko ci bu xëyee këram suba ba ba ba minuit ba mbir mi mi ngi ci soxla jàmbur yi soxla si te nit ñi boo nekk seen soxla yàlla nekk sa soxla man kaana lillaah kaana laahu la ki ma dendal nag di sëñ bés poroxaan alhamdulilah xam nga lu am solo la tur tur wi day wuyu la muy wund sëñ bés poroxaan xaw naa dee poroxaan de xaw na faa dee la ngay def ba ab dëkk turu dëkk ñu kole ko ci ci saw tur ba boo ko bëggoon a dindi tey boo ko waxee kenn du xam jamu jiiti kenn du ko xam ak wax dëgg yàlla mu jiitu fa nekk pionnier pionnier pionnier pionniers xam nga leen ñoo demoon États-Unis jiitu fa defar ko ba léegi muy euh, réew mi gën a développé ci àddina te wuñ dëkkuñu fa parce que foofu ay indien fa dëkkoon ay indien ñoo dëkkoon foofu kon sëñ Bas wax dëgg ni nga def poroxaan ba poroxaan nekk tey nga xam ne képp ko am euh, kër Touba bëgg nga fa am kër loola la ko la ko def noonu sëñ loxo sëñ Bas mii moo ci ne ndax même sëñ Moussa Bassir ci nekkam da ko fa yebaloon bàyyi ko comme ni ñu yebale woon ñun ñëpp rek nitu daara yebal la ci dara du am ngay muñ rek boo amee sa laaxu xoñ ji baax na sëñ Moustapha benn tàkkusaan ak Cheikh Anta Mbacke mu ne ah gone Mbacke Mbacke de bu ma sañoon ñun ñëpp dañuy nekk benn waaye day seen ànd bii nag moom ci gën a dàqalati loolu alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi ciy sant bu baax Daaru Naim nag <coughs> sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Xaadim docteur gis nañu woote bi mu woo daayiram yëpp moom it xam naa euh, kasu rajab buñ ko weesoo wala bu ko jiitoo dama xamatul. Euh, ñetti fan yi barax bi. waaw waaw gannaaw la kon ñaari événement yooyu yëpp ñu ngi ñëw mhm. ñu fonk ko rek. Euh, di sant ñi fi ñëpp ci bokk wax dëgg yàlla bari nañu ma ne su a lim li wax bés bi danañ ko lim euh, di ñaan waa dëkk bi lii nga xam ne Aliou moo moom la fi doon doxal ci dëkk bi ñu bañ koo fàtte ndax jamono daa ñëw ak yi mbiram euh, gis nañ ne soppiku yu bare bari am na ci jamono léegi li may wax sax mooy ñun ñii ak gone yi daanaka day mel ni bokkuñu sax culture ndax télévision ak média yi dafa yàq doomu aadama yi kenn ku ne gis na ne euh, toog juróomi minute ci télévision ak seen njaboot te gisoo lu naqari mënut a loolu dañ ko waroon a censurer parce que mu ngi yàq Sénégal loolu parce que itam mooy dem na ba gëmuloo ñu lu dul suñu bopp te dama waroon gëm gëm suñu bopp Cheikhul Khadim lan bëggoon ci ñun mooy liggéey ak jàmm yàlla di am jom di ñaq bañ a bëggal kenn ndax bu fekkee da ngaa bëggal kenn dara ko amul san xalam da nga ëmb kersam bu ko defee day mel ne ku la abali bët fu ko rek

waye ci biir kër gi mom fexel ba fexel ba sa xale mom nga bañ mu sétane yu bon yoyu parce que mokay wal aw xal wo xamné dafa dend ak këriñ ngelaw lu bare bare di fa romb tu rek dana ci am lu cey wal borom ci kon nako suñ borom waxal nako suñ sey khadim rasul waxon idil qarin bil qarin yaqtadi fa man yusaahibu rachida yarshidi bo ande ku bon bu yagge rek bootul dana la wàll kon nag mi ngi leen di dëgal ngeen ànd ak ku baax ku jub ngir yàlla ndax bu boobaa da ngeen mën a jub loolu la sëñ Tuubaa digal euh, kon ñu ngi sant toogaay bi dafa yàgg euh, te wax dëgg yàlla ngeen bàyyi seen yitte yi ñëpp te xew yi itam bari fenn fu ne am na foofu xew ci dëkk bi dëgg yàlla nit ñi bëgg lu baax lool waaye lii nag euh, élément de régulation ci sunu bii en société ci biir Sénégal maanaam dafay dafay dafay segg mbir yi waaw joxaat ko di ko suuxat di suuxat dundin wi ni ñu bokk dundee ci société bi ndax euh, ñu ngi ciy wax jàmm li ci delloo nit ñi ci suñu borom tabaraka di leen gën a jàngal kan mooy xadimu rasul ñuy am comportement yu baax di mën a dëkk di gën a sori lu bon di gën a jege lu baax bu ko defee Euh, li ci baax mooy ñu delluwaat ci éducation yar xale yi yar xale yi parce que dañuy wax ne atbai diina madama su fekkente ne euh, argile mooy ban boo ko bëggee jëriñoo da koy jëriñoo ci tooyaay bi waaye su fekkee looy jëmbat la doo bàyyi ba wow da koy jëmbat ci tooyaay bi soo bëggee mu jëmbi kon xale yi it noonu foofu lañ leen war a jaarale ngir ëllëg ñoo yor avenir Sénégal te xale yi nañuy mel rek la réew mi mel bu ëllëgee kon ñu farlu ci bu baax ci yar ba nga xam day suñu wajur yu baax yooyu yaroon nañu ko ñun ñëpp loola ñoom it seen wajur yaroon nañu ko mu doon jokk jolaatoo jóge ca maam yu baax yi ba léegi moom kan loola tax moo fi bàyyi valeur bii buñ ko sàgganee nag day dem ba réer kenn dootu nit ñi sax ba génn di mbëkkante foofu la ñuy jëm parce que ku gis senegal ni mel nii da ngay tiit da ngay tiit lu neex waay wax lu neex waay def kon ñu waat ci njàngaleem Serigne Touba bu ñu ko defee rek danañ nopp noppalu ñu ngi sant ñëpp képp koo xam ne tudd yooyu it na nga xam ne suñu xel mi ngi ci yow ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Serigne Cheikh moom suñ Baara Doli suñ Baara di suñu mbokkum geet mu ngi fi ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, famille Guette bi nekk ci Sénégal yëpp ñëwoon nañ fi démb ñoo ngi leen di sant bu baax euh, waa euh, ahlu jant bi ñëw nañ fi ñoom itam ànd ñoom ñun di jox xaalis ñu koy def suñu poche. dëgg la dañoo ànd bu koor jotee ñu wut suukar ñu dajaloo fee ca daara Cheikh Mamadou Moustapha Dia ñu ca Loween ñu seet ñi nga xam ne aajowoon nañ ko ñu jox leen suukar si. bu poroxaan dane jotee ñu dem siyaare ji euh, sëñ Bass mii sax waxtaan ko ne ko daayira mam jaare bi nekk ci Ndodi nan fa jox kër euh, maa ko yàggal maa ko yàggal ndax jafe-jafe jafe-jafe yi tànk yu xaw a diis ndax yitte yi waaye ahlu asxaabu ceñeer aussi loolu lañ def mag nañ juróom-ñaari téeméer ñu nga Dakar te rajo bi rek moo leen xamale ci waxtaan lañ fii waxtaan ci Sëñ Tuubaa di ko jéem a xam xamle di ko jéem xam xamle ñoom it loolu la ñuy def ma ne leen ngeen di dem Porokhane dem seeti ñëw Touba ziare Sëñ Touba muy Cheikh Sidi Mokhtar bi fi nekk. ak jumaay Ndakaaru jël lu ngeen ci mën ngeen jàpp ci loolu lañ fay loolu la ñuy def kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant euh, ñoom ñëpp ak euh, soppe yi nga xam ne ci Sénégal gi yëpp ak waa Majmahun Nurayni Majmahun Nurayni gi nga xam ne euh, lépp lu ma man ñu ma ci jàpp ndax daanaka dama ko talatul sama ay société ak sama yëpp daanaka yàqu ma yaa ngi ndax loo gëj rek boo ñëwee fekk foofa max max wala ay lënd waxiin la loo gëj rek da nga fekk max wala ay lënd man la bindoo kon même wayjur yi ak ñu baax ñi boo ci gëjee euh, boo ci gëjee rek ñu fàtte leen doomu adama dafa gaaw fàtte kon ñu delluwaat ca Euh, mag ñu baax ñi nga xam ne tàmbalee ci waa kër Maam Maaram waa kër Maam Mor Anta nga xam ne kenn ku ne sa morom moo la gën a loon sa bopp buñ seetee foofu mu yomb sa morom moo la gën a loon sa bopp Cheikh Ahmadou Bamba ñëw xal baax ci baax waa këram yii kenn ku fi mas a jaar ku ne daa ñëw daa roofu ci yow di la jëfloo di la wax loo di la jëfloo di la wax loo ñoom itam gis nañ liggéey bu rëy bi ñu fi def dara mosu leen ñor lépp dañ ko delawaat xadimu rasul kon nañu roy ci ñoom lu ci des mooy presse bi ñu ngi leen di sant gis nañu vraiment ne que ñoo mën a defar réew ñoo ko mën a yàq te wax dëgg yàlla presse bi nekk fii eh, ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax di sàmmanteeg loolu lu am solo la lu am solo la eh, bu fekkente ne li ma mën a xam mooy juróom-benn weer dong mën nañ cee defaraat Sénégal presse bi juróom-benn weer donc ginnaaw euh, euh, ñuy ñuy toppandoo fi ne lu yomb la ginnaaw dañuy toppandoo ah kuy toppandoo defar fa moo gën a yomb waaye yàq fa it moo gën a yomb ndax la ngay gis dañ koy singer surtout buñ jàngee ñëw ah, karawaatu wax làkk tubaab defe ne yaa lay golo gi fàtte nga say maam ñu jàngal la nos ancêtres les Gaulois suñ Gaulois yi ñooy suñu maam hmm? mhm. Gaulois yi nekkoon ñu weex tal ñu ñu jàngal la loolu seen histoire ba fàtte loola sa histoire yow nga fàtte ko nga xam ne lépp da nga koo jéggaan yi ba noppi di ko tiitaroo nga xam ne fàtteloo nañ la sa bopp ci biir fàtteloo sa bopp boobu ngay tiitaroo nag kële nga xam ne d'abord dafa ñëw impérialisme jaar na ci not la jaar ci colonialisme not la jaar ci esclavage

اكسي فوفو دا غاي افضل الاعمال ما اكرهت ما اكرهت نفسك واخي من دونو بو كو ديفه ني ا افضل الاعمال ما اكرهت نفسك دي جن تي جيف موي ليغا خنني يا bu ko defee nga jël nag ay yeneen yu mel noonu fekk ña ngay waxal dégguñu la ngay wax foofu dialogue de sourds la waxu tëx ak tëx loolu la nga daal di toppandoo arab ba fekk arab ba waroo ko toppandoo ndax culture am nam mel wax dëgg yàlla boo fa dundee ci ñoom da nga xam ne duñu exemple nee yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam تلول فلو خمني موي ديني دلوات أصول إلى أصول الدين الأولى دلوات ما بني بنيوي آثار يب دن كوفر باسكو جاب نين لولا بوغيني ان نين فاغا دالوا كان يونتي بون ديلوسي مي سين ريجيم بي دان موتاخ لون سي مان سي فار اك دي ووت يينن فاصون جولين اك يينن يو خامني تور لوب تور ديندي فيني في نيوان nga xamni nga na len ko def ak économie parce que bu leen fàtte ne mm, aj bu am solo la waaye ñoru leen loolu dafay am kon ñun dañoo war a dellu ci suñu cosaan cosaan xam suñu bopp gëm suñu bopp xool nu ñu ko sëñ Tuubaa yéenee ak fi mu jaar pour loolu mën yomb ci ñun ak nu ñu ko tegtalee te lépp day ànd ak diine ànd ak islam ngor defe ne

dañuy dem Italie dem fu ne ñooy yëkkati mbootaay googu nga xam ne dañ koo jalweel maam maaram gépp ñu leen di sant di sant euh, mbootaay googule di ñaan yàlla may leen ci ndam ndax jamono ji day sos ci dara ak a jafe booy sos de da ngay wéet lool waaye la nga sos bu demee ba antu euh, da nga koy samp saw xel kon waaye yàlla nañ ci yàlla jàppale lu gërëm la di sant euh, soxna May mom sëñ Abdou Khadir soxna May mom sëñ Abdou Laat soxna Gàddi Bousso soxna Asu Mbàkke mom sëñ Abdou Borom dër bi ci jappale yi ñuy jàppale ak maam as Asu Mbàkke maam Issa ahlu café léegi nak wo ma nga ci Italie euh, di sant bu baax soxna jox suñu mbokk kër ya ba mom itam ñu fi tew ak ñu fi tew ñepp rek goor ak jigen euh, ma nga ndaw euh, ma delu ci wat ci Majmahun Nurayni ak daayire kër gi yëpp nag sax daayire kër gi yëpp ñu leen di sant bu baax gis nañ ni ñu jàppe jàppin bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen kàttan ndax nit koo xam ne wax dëgg yàlla la euh, mu yor yaa ko moom du jaar laaj waaye gis nañ ne duñu xaar sax ba leen leen di laaj suñu soxla yëpp ñu ngi ci jàppale loolu doy na lu sëkk ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp donga yi daara ci daara ji ñoom itam fenn fu daal nit a nga fay yëngu ngir bëgg lu baax kon sëñ Moustapha ñoo ngi dellu di la sant bu baax di la ñaan nga jot bi nu njabootu sëñ Tuubaa gépp nag sunu cant ci ñëw gi ñu fi ñëw ci dëkk bi nga xam ne mooy seenu dëkk di Daaru Naim di ñaan sunu borom euh, jàpp lañu ba ñu mën a roy ca mag ña ndax la ñu nekkee woon mooy dëgg ndax mooy la xaadim rasul digle woon li Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digle woon mooy la nga xam ne sax nañ ca daan ko jëfe di ko doxee di ko waxee yàlla na ci yàlla xiire تيرويد بجاه سيد وجود والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد بخلبي يعلم لا أوسع زماني إن ليدا بأدا سوى أكرمنا لا وسامانا لمن